mbokk internet yi ñuy seetaan ci Refane TV ñu ngi leen nooy leen siyaar comme niñ ko waxee ci bëccëg rek ak jawriñ duñ toog doon di ko laaj histoire Mbomboy gi ñu ngi toog ak xale yi Mbomboy ñuy mobiliser chaque année di def ay kafe di ko jox jaamele yi ñëw ci bés bi mu di lu am solo wax man nii depuis Bawol gis nañ léegi jàng yu am dañuy def ndaw yi di ko def ñu ngi leen nuyu Abo Diouf waaw maa ngeen di fay di leen di lu teewaay bi fi wax dëgg kontaan naa ci bu baax a baax waaw mobilisation bi ngeen def moom franchement ñëwal ñu ci suñu bés bi moom duñ def dul di ci bëgg rek yéen moom xam naa ne wax na de instant yi moom kenn booleetu leen ci dangeen ngeen cee bokk. Mhm. waaw ba tax lii moom dama cee bëgg bu baax baax kontaan naa ci alhamdulilah. ñu gis si ngoon ngeen mobiliser yéen ñëpp ngeen nekk ci kafe yi. Mhm. lan moo waral lool ak ko ginnaaw idée boobu. waaw lii de moom francement daa nekkoon jeunes yoo xam ne rek dañoo newoon ci koñ bi. Mhm. toog ba xam ne wax dëgg yàlla jàng yi dañ doon ñëw xam nga gu nekk gu ne rek ci dëkk jàng yi moom dañ ñëw ñu an ci mbuumbaay mi yaa ma gën a xam doon doon woon ñu participer ci leen mhm. léegi daal ñu toog rek doon ab benn nombre bu ndaw ay cinq personnes six waxtaan ne ah ñun de jàng yi franchement am dem nañ ba amuñu ci loo xam ne nii suñu participation gisuñu ko ci mhm. léegi nag ñu ne nag kon war nañoo mën a booloo ci suñu biir mhm. di yëkkati ci suñu poos di gën pour pour pour euh, di defar jàng yi di defar ci ci ci ci bëgg daal bés bi gën a gën a gën a gën a gën a yem gën a normal ba tax ñu ne dañuy xel di defar ay kafe di ko segg di dem di joxe ca tànt ba képp koo xam ne teew nga rek ñu buñ la gisee ñu servi la suñu café waaw participation bu daal lañ ne woon moom la ñuy def ñu ndaw ñi nga xam ne nii fii nag lañ ko njëkkee ci koñ bi mais yàlla dafa def nag dafa dem ba dafa rom fii ñaata at a waaw bi nag moom mooy troisième édition. waaw bi mooy troisième édition première bi nu mu demee première édition bi xawoon naa metti. Hmm. mais dañu am ay kilifa yoo xam ne nii dañuy ànd ak ñun dañu gunge ci bés bi. Hmm. waaw di ko rafetal di génne seen alal di ñu jox. waaw moo tax affaire yi moom mën naa ne métti woon na depuis ba mais instant bi wax dëgg alhamdulilah. am na solo bu dee yéen ndaw yéen nu ngeen ko doxalee da ngeen di cotiser wala ni ngeen def mois. waaw ndaw yi ni ñuy defee cotisation lay doon. dañuy def cotisation lay doon 3000 3000 la ñuy def ñi nga gis ñu sol 17 yëpp 3000 3000 non bu jàng yi waaj rek lañ ko daan def bu jàng yi waaj lañuy ñëw affiché euh, dafa am ab groupe whatsapp boo xam ne ci la ñuy rajo ñun ñëpp cotisation lañ daan def bu ko defee dina am nag mag ñoo xam ne nii ñoom wax dëgg ba fii ñu yem nii moom ñoom bàyyiwuñu ñu ñu benn yoon dañuy yëkkati seen moom di ñu jox te di ñu encouragé mm-hmm. voilà moo tax ñu ñu yegg fii ñu yegg franchement. comme ni nga ko waxee comme li mu wax rek am na solo trop léegi dañuy jox soxna Ndeye kaddu gi mu wax ak yaay Fall ji mu fàttali asalaamaaleykum mbokki Sénégal mbokki internet yi rawatina ñi safoo Refane TV tey nag ñu ngi fii ci Refane Mbomboy euh, ñu ñëwoon fii nag ñuy amal màggal goo xamante ne màggal gu am solo macha allah di sant Cheikhul Khadim at mu jot euh, tey nag ñu ngi jàkkaarloo ki nga xamante ni moo di soxna Suuna Faye euh, macha allah ne ci axlu café gi soxna Suuna ñu ngi lay jaare baax la ñaanal jaar di fay bu baax baax di leen di rafetlu seen teewaay fii nii parce que ça moom mu ngi door am pour une première fois ñu organiser lii ngeen jël seen initiative bopp ñëw ba fii nii vraiment ñu ngi leen di remercier bu baax. macha allah am na solo bu baax a baax waaye woote ñu wuy si la daa yombul macha allah ban yëg-yëg ngeen am ci lool. À ah, contente rek parce que li bañ ko doon def vraiment première édition bi xawoon na metti tuuti mais bon fii moom dëkk la boo xamante ni nii ñëpp dañu mobiliser wu loo wootee ñu fekk la si vraiment donc mu nekk lu rafet ba tax ñu am fit am détermination daal pour mën a continuer vraiment. macha allah ban poste nga am ci ahlu café gi. Ah, man de euh, président wu famille daal voilà macha allah am na solo ba tey ñu bëggoon a xam ndax la wala waaw mën nañ ko non pas daara mais organisation juste pour servir dal. dem si euh, bâche bi si cérémonie officielle bi servir ñi fa nek jox leen café ñu ñaanal ñu vraiment loolu tax loolu ñaan yoyu tax ñuy avancé di première édition ba tay di 3 euh, troisième édition vraiment macha allah macha am na solo bu baax a baax ba tey kon euh, da ngeen def ay cotisation wala dañ leen di financer. non cotisation yi par exemple par euh, année lay nekk daal comme par exemple année bii nii dañuy def ku nekk cotisation 3000 ça veut dire que t-shirt bi ak cotisation 500 am na ñu am yéene dañu jox xaalis bu bëri comme par exemple ñi nga xam te ne ay kilifa lañ si dëkk bi dañu jël seen xaalis indi ko si ñun jox ñu ko. ñi nga xam te ni comme sama genre gi amuñu dara vraiment ñoom ñoo joxe ay 500 par exemple ñu daal ku nekk lu mu ñu indi ñu jox ku ñu indiwul tamit ñu xam ne yéene bi mu ngi fi ak yëg-yëg bi daal. macha allah macha allah am na sol bu baax a baax kon ñu ngi jëbbalaat kàddu gi caanaa rek. waaw ni mu ko wax rek li ñu def lu am solo la képp koy ndaw war nga cee parce que yoon Serigne Touba moom amul tànki ginnaaw tànki kanam la am. comme que ni mu ko waxee ne def nañ ko bii mooy troisième édition te gisuñu ci lenn dul avancement mu di lu am solo di leen ci ñaanal rek ñu yàgg ci képp ku nekk ci deg bi rek di ndaw comme ñoom gën leen cee jàppale bañ gën cee luñ ci bokk daal ñu am ko ci am na solo trop yaa ngeen jëf mbokk internet ñu doon seetaan ci Refane TV